Sans voix. Quels sont ceux qui s'abstiennent Une voix. La motion est repoussée, la discussion s'engage. Euh, monsieur le la question préalable est donnée une seule fois. Une seule fois. Euh, monsieur le Président Mamadou Lamine avez-vous des observations de forme à faire, à faire sur le rapport Je ne vous réponds. Allez vous asseoir. Allez vous asseoir. Mais allez vous asseoir.

voilà mbokk yi comme ni ngeen ko ni ngeen ko gisee fi mu ne nii euh, jot nañu euh, suspendre séance bi euh, pour cinq minutes comme ni ko président assemblée nationale waxee Amadou Mame jóg ndax daanaka kii di Cheikh Abdou Bara Dolly moom moom moo souligné ab question préalable donc question préalable bi nag bi mu ko souligné président assemblée nationale def ne kenn rek lañ ko lañ lañ mën a autoriser pour mu mën a daal di aborder boobu les question préalables waaye nag député opposition bi ñoom. dañoo taxaw teemu ne tout membre de l' assemblée loolu la ñu doon wax noonu euh, tout membre de l' assemblée donc euh, ñoom la ñu wax mooy euh, membre assemblée nationale bi yëpp ñoo war ñoo war a daal di apporter si lu jëm si wàllum question préalable bi loolu nag moom moo indi euh, li nga xamante ni moom moo di euh, perturbation bi euh, si hémicycle bi ndax déjà ñoom député yi ñu ngi noonu Abass Fall ak Guy Marius Sagna ñu ngi taxaw bañ lañu def lànk tëdd lànk la ñu def ne daal tout membre l'assemblée ñoo war a ñoo war a daal di mën a apporter apporter li nga xamante rek moom moo di li ñuy tubbee question préalable fii si hémicycle bi euh, gannaaw euh, ba nag euh, yëf yi compliqué si li nga xamante rek moom mooy si hémicycle bi ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñoo di député yi ñoom ñëpp ñu daal di génn def seen bloc taxaw. Euh, si euh, hémicycle bi euh, wax ne daal du ñu nangu daal président assemblée nationale bi di jox benn nit pour mu mën a aborder si mbirum question préalable donc nag ñoom daal faaw ñu faaw ñu autoriser tous les membres de l' assemblée nationale ngir ñu mën a daal di ñëw si mbirum question préalable bi nga xamante ni déjà bi rapporteur bi pare si jàng li nga xamante rek moo di document bi yëpp maanaam exposé des motifs bi euh, si noonu nag la ñu joxee euh, kaddu euh, kii di Cheikh Abdou Bara Dolly donc pour ñëwaat si kaddu Cheikh Abdou dool Dolly moom moom nag ñaawlu na anam gi nga xamante ni noonee la ñu nar a wotee loi bi ndaxte jàpp na ne loi bi dafa am ndëkk sërëx dem na sax bay fàttali article 31 bi nga xamante ni moom moo fixé datu élection yi te tamit daal na fi apporté li nga xamante nag moom moo di